Thank you.

ñu partage ko askan bi ku nekk am si xalaatam ku nekk am si xelam mais yéen ñi tam di bëggee info Rewmi mën ngeen commentaire rek wax seen xalaat parce que nit matul tey moom lañ seet si ñu lay nuyu di la ziar di la jaajëfal bu baax di la remercier tam si accueillir bu ñu accueillir. nuyu say euh, téléspectateurs yi di ci profito di nuyu waa Sénégal yëpp yi nekk fii ak yi nekk bitim réew. Mm-hmm. Euh, waaw xang politique moom eh, réew politique moo ko yore ah, moom eh, politique moom mooy doxal réew nga bëgg ko wala nga bañ ko eh, donc c'est normal gouvernement nag moom suñu sart réew moo jox sañ-sañ président de la république saa yu ko namee mooy defal gouvernement tànn ku ko neex loolu la def tànn na ay nit ñun li nga xam ne mom moo ñu war moy ñu am confiance ci mom am yaakar ci ñimu tan ne dinañ jëmele Sénégal fi nga xam ne la askan wi bëgg donc liñ ci wax rek moy ñu ñaanal leen ñu am ndam parce que sen ndam moy ndamu président de la république ndamu président de la république moy ndamu réew mi donc man awma lu ba ci wax lu dul ñaanal leen eh, ñu am ndam vraiment liggéeyal askan wi parce que lolo tax président tàmbale tànn Aly Ngouille Ndiaye kat dañ ko wara fal sax lu ëpp ministre de l'intérieur parce que bo xolé yi ko euh avant wote bi am ne wote bi du baax wote bi du jaar yoon et tout ak wote bi machallah nim jaaré yoon nga xamné ndaw yi fi ñewoon yépp joggé ci aduna bi yépp pour ñew sentu wote wi ñom ñep ñoo and wax ci di ben ne wote bi machallah jaar na yoon kon Aly Ngouille Ndiaye buñ ko delloowatoon place am je crois que président ko war ci def nako Euh, ma ci profité d'ailleurs pour féliciter vraiment le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ndax liggéey bu rafet bi muy rafet bi muy def te du ci ànd ak wax ju bëri. Amadou Ba ministre la comme yeneen ministre yi na ci moom confiance bon fal nañ ko moo nekkoon ministre des finances léegi ministre des affaires étrangères la ah loolu xaw ma luñ ci war a kaas nag moom. day wax dëgg yàlla jarul kaas parce que Amadou Ba moom ak ministre yëpp benn lañ ministre yëpp ñoo bokk ndombo tànk ay ministre ministre rek la war a doon. non loolu nag nañ ko baax parce que fi mu nekk nii sax président dafa amatul gouvernement ay collaborateurs yi ay min président de la république la président bi mu leen jël ñoom ñëpp mu taf leen ci wetam pour ñu liggéeyal ko ku ci nekk ministère ba amul ministère bii boo ëpp xaalis kooku xanaa kon yow naroo lu baax wala naroo jàmm bann bu ñu jox la ministère nga naan bii moom a gënal bee moom kooku ko fi wax am dafa naroo jàmm ministère yëpp benn la da ngay liggéeyal ministère même bu amé xaliss xaliss ba moomoo ko askan wee ko mom liggéey banque nga liggéey pour askan wi la donc ministère yep ben la non lañ ko wala ki kii ku fi nek nak ñu lay jox ministère ngay xép naan bi mo ëpp xaalis wala ki koku moom bu yeboo ñu genn ko sanni ko ci biti xam ne naratul liggéey rek gouvernement fay nek bu amé institution la comme assemblée nationale comme haut conseil comme président de la république comme conseil économique et social institution lay don. Euh, gouvernement bu ko président defee ci benn régime dafay dox digganteem ak administration ak la ñuy doxalee réew mi euh, loolu mooy boo bëggee jot président balaa ngaa jot président il faut nga jaar ci gouvernement président nag dafa toog ba mu yàgg mu ne comme man la askan wi fal dootuma utati lu dox suma diggante ak askan wi wala ak administration bi man ci sama bopp may jàkkaarloo ak askan wi liggéeyal askan wi ak ñi may tànn ba nga xam ne lu ci baax man la lu ci bon man la donc kooku franchement li ñuy wax courage politique fit la am ba pare nag euh, jël pal gi ñu ko pal delloo ko askan wi nara liggéeyal askan wi ba pare jiitu ci looloo tax mu décidé ne dafay supprimer li nga wax ne li nga xam ne moom mooy gouverneur moom mu nekk président de la république nekk responsable politiquement devant le peuple sénégalais parce que moom la ñu fal amul kenn koo xam ne léegi dina dox diggante ak askan wi. ñu gis ne Aminata Mbengue Ndiaye léegi ci njëlbeen amul euh, euh, Aminata Mbengue Ndiaye liggéey bu rafet la def te yàgg na du ci. gouvernement Macky Sall la commencé liggéey. Mm-hmm. liggéey na ci comme euh, liggéey na ci gouvernement Abdou Diouf. Mm-hmm. kenn mësu koo wax de am na ñuy wax ni ñeek yooyu vraiment kenn mësu ko cee wax naan mënul liggéey wala fonkul liggéeyam wala deful liggéeyam bu tax man dama ko naw jigéen bu mun liggéey la ku mun bay nag mun sàmm mu napp comme dañ ko joxoon ministère. Euh, Euh, de l'élevage ñu dindi ko fa jox ko nag léegi ministère de la pêche man yaakaar naa ne mun na ko te dina ko def dafin bu rafet waaw man man vice may man man man vice président la au conseil dégg naa ay journaliste bind seen site ne man dama doon revendiquer pour pour am poste ministériel mais ku ma xam xam man avocat pire la j'ai la profession d'avocat dans le sang lépp lu ma am sama place bii ma toog moom ma ko gënal parce que kenn falu ma fi maa fi fal saa bopp te kenn du ma fi dàq alors donc man revendiqué wu ma benn post dañ ma laaj rek ne ma gouvernement bi yow da nga am coalition boo jiite boo xam ne ñaar fukki parti la noo gisee man dafa def constat ne coalition boobu kenn bokk ci ci gouvernement bi ca loolu dëgg la kenn mënu ko diti mais du caa gën ne dama revendiqué pour ñu jox ma poste wala su ma ko doon revendiquer du ci ci biir presse bi laa koy revendiqué kon dinaa ko wax ak ki nga xam ne moom laa ko seqal muy président de la République mais président de la République xam na ma xam ne man je l'ai toujours mise à l'aise revendiquer wu ma dara président lu mu def baax na ku mu teg fu mu la teg baax na mais nag du du tere aussi bu ñu la laajee nga def constat suñ coalition amul kenn koo xam ne bokk na ci gouvernement bi loolu laa wax. parce que gis nañu bari ñoo xam ne dañoo ñoo xam ne dañoo

peut-être ñu koy wax ñoom ñoo yaakaar bu ñu nekkoon ne ñoom la noonu la ñuy defee mais xalaatuñ loolu dañu ñëw pour jappalé président Macky Sall dem nañ ba contrôle nañ ko dem nañ ba gis nañ ne Macky Sall mu ngi liggéey réew mi té ñom liggéey réew mi mo leen mo leen mo leen ñor mais ñu and ak kii liggéey réew mi mais pourquoi ñu leen di wax ay transhumant ki dañu ñëw extra ñaaw lamine dong mo ci am ay gor pire lañ nañ bàyyi japp ñu gis ni euh, Macky Sall nee na bëggatul benen mandat 5 ans lay tok après mu dem. man nekkuma APR dama am parti. front républicain mooy suma parti man nekk coordonnateur coalition bu ñuy wax coalition pour l'émergence boot ñaar fukki leader parti ak ay parti suma ginnaaw man nekkuma APR. parti. man sa parti mooy front républicain jaamu askan wi. da am candidat. Macky mooy suñu candidat. non Macky Sall bu toogee cinq ans day def. non Macky Sall waxu ko kooku askan wi moom moo ko proposé askan wi askan wi ànd ceeg moom léegi président bu fi toogati juróomi at am nga droit laajaat juróomi at boo ko amee muy fukki at mënatoo ci toll beneen at Macky bu jeexalee mandat bi dafa war a bax ñu nag lu ñuy ñaan mooy bu fu bu demee bu pare ki koy remplacer topp gis-gisam.

dañ xam ne Sénégal def na ay jéego yu rëy ci koom-koom bi ci social bi ci culture bi même ci politique bi benn bokk yaakaar bii fi nekk juróom-ñaari at a ngi nii at bu ne ñu day tas mais tasul coalition bu mel nii àddina bi yëpp moom rek moo ko fi am moo tax ñu ñuy ñaan ñun ñu bokk ci benn bokk yaakaar ñu ŋànk ko ubbi ko même bu fi Macky Sall jógee benn bokk yaakaar des fi. maa leen di sant di leen di di sant seeni téléspectateur di leen di remercier ci ni ngeen ma seetsee pour ma wax sama xalaat ci ñi réew mi doxe parce que yéen bu dul woon yéen tamit képp koo xam ne am na xalaat aussi réew mi du ko dégg yéen yéen a dox suñu diggante ñi nga xam ne ñoo def politique ak askan bi donc mënuñ lu leen di di gërëm aussi di leen di ñaanal jàmm parce que bu ngeen amee jàmm réew mi am jàmm